Mbappé mi joom mi jomet ndax jaadu na ndax Mbappé war yi mu war ma Madrid dafay bëgg këppu ci moom jàpp naa ni waru ko comme ni ngeen ko xalaatee contrat la fa am benn at sa ngëm boo xam ne war na koo doxal te it signé waatul contrat boo xam ni dana continuer foofee ca Paris Saint-Germain du jeexalub contrat am loolee di lu mën a am solo Gundogan footballkat bi gën a xarañ ci boobee match loolee lépp bëgg nañ koo tënk defal sa abonnement yow mi may door a topp yow mi nga xam ne tàmm nga kër gi ci information yu te wóor wamas ñu dem doxalal dara warul la lu dul emee vidéo bi bu la neexee commentaire loola yow rek lay neex ma nga noonu gars yi Mbappé ngeen gis ko noonu nag mu xaw a mel ni ku jom mi ngeen gis ko ci match bi nga xam ni jeex na léegi ci diggante équipe bi la nga xam ne mooy Newcastle tëj ci lañ leen def ba nu nooy nepp ba daanaka fu ñu tëdd danañ leen defal am xewar wala lu ko mooy seen yaram du ko fete ci match bi nga xam ne moom lañ doon football ca Angleterre gars yi bit bu ñëw ba nu yaakaar ni foofee la ndajami yam beneen bit ñëwaat te loolee ci kanamu ki nga xam ni mooy Kylian Mbappé mu mënta lijjanti benn situation tey jii match ba nag ma nga noone ki nga xam ne mooy Almiron moo njëkk a dugal fukki minute ak juróom benn euh, nga xam ne daanaka bit boobee nag mooy li commencé commencé jongante bi Paris Saint-Germain nag am na bit boo xam ne Lucas moo ko dugal Hernandez juróom fukki minute ak juróom séngam loolee tamit téewul match ba métti ci ñoom bu baax a baax ndax gone yi nga xam ne mooy Newcastle dafa mel ni danoo nenn équipe bi di Paris saint ndax ba bit ya commencé tararari gars yi tegguwun benn yoon seen tànk ci accélérateur bi lu dul di accélérer rek li ñu gis mooy victoire boo xam ni bu yaatoo yaatu ci gone yi Paris saint yi nga xam ne gars yi sonn nañ lool ci match boobee ñu jóge foofee dem fële ca Espagne waaye nag dañ koy baagante digganteem ak Portugal ndax Gundogan Portugal lañ ko sargale tey mooy footballkat bi nga xam ni UEFA moom lañ ni moo gën a xarañ ci match boobee maanaam match ba mu football 22 personnes yi nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi amul kenn koo xam ne xaaj nga def li gone gi def gone googee nag mu nga jógee ca man Manchester City yéen ñi ko xamul daan jaxase digg mi la terrain ba te ki nga xam ni mooy Pep Guardiola nam na ko waaye mi ngi nammante ko kii di